jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñoo ngi leen di nuyu euh, di rafetlu seen ànd ak euh, ñun mbokk yi seen émission pencum réew mi ñu dellu si waat ànd si ak yéen tey jii si samedi ji comme ni ñu ko baaxoo di defee ak yéen saa su nekk bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu ngeen di si ànd ak Abdou sekk Seck Mamadou Diaw jàll ma moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi nag tey ñoo ngi dalal Saliou Sarr Saliou Sarr ne euh, moom bokkoon na parti socialiste ay jamono léegi ma ngi ci euh, taxawu Sénégal ak Khalifa Sall euh, muy milité fi nga xamante ni moom mooy Dagana. Euh, moom moo jiite euh, moom moo teewal opposition bi wala mooy coordinateur opposition bi ci li nga xam ne moom mooy dialogue politique bi euh, moom la ñu invité tey fa yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy élection locale yi ñu daal di dëgmal jàpp nañ ko ci atum janvier atum 2022 danañu ko daal di waxtaanee danañu waxtaanee tamit dialogue politique bi waaye dinañu waxtaan tamit ci li nga xam ne mooy fichier électoral bi ak yeneen ponk yoo xam ne aju na si jëm ci kuréel googu nga xam ne ci la bokk di taxaw Sénégal Saliou Sarr am nañu mbégte euh, ci euh, wuy si bi nga xam ne wuy si nga ko euh, émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM. jërëjëf Abdou Khadre di kontaan trop ñu teew si fii pour ñëw wuy si sa invitation. di la gërëm bu baax du nuyu waa réew mi ak auditeur réew mi yépp di kontaan donc si turu taxawu Sénégal ak Front de résistance nationale ñëw donc wuy si sa invitation. Euh, Saliou Sarr yow yaa nekk coordonnateur opposition bi euh, ci dialogue politique bi est-ce que à l'unanimité euh, dénk nañ la seen kàddu wala am nañu yaakaar si yow wala taxawaay bi nga leen taxawu nekk coordonnateur dialogue politique bi am nga à l'unanimité ci opposition bi. waaw euh, jërëjëf xam nga bu ma. bu ma amul woon unanimité du ma du ma du ma nangu euh, maanaam euh, kaala gin ma jox muy coordonnateur des plénipotentiaires donc euh, de l'opposition xam nga opposition bi ay parti politique ñoo ko ñoo ko ñoo ko seq ñenn si ñoom ñi si ëpp taxawal benn kuréel bu ñuy wax front de résistance nationale wax dëgg yàlla mu jël l'essentiel des partis d'opposition Sénégal ëpp na ay at donc ñoom ñoo ay àndu nawle la ànd donc euh, bu ñu dee dem fenn ala kulli àllin téeméer mënuñoo jiitu kenn day jiitu rek ànd ak ñeneen ñi mais àndu nawle loon effectivement euh, man avant may nekk coordinateur Déthié Fall moo doon coordinateur u plénipotentiaire yi nga nekk vice président waaw ma nekk vice président mais nekk rapporteur général. bu bu bu groupe bi. Hmm. donc euh, bi dëcc demee naturellement donc euh, man maa lanu ma proposé ma nangu donc continuer liggéey bi. Hmm. donc effectivement mën naa wax ni wax dëgg yàlla sama nawle yooyu ma àndal jox nañ ma cër waaye aussi lii de leaderu position bi jox nan ma cër. ndax fépp fu ñuy daje dan may woo pour ma ñëw di leen maanaam defal ay le point li nga xam ne ni foofu la nu toll si dialogue euh, dialogue politique. d' accord léegi euh, Saliou Sarr li nga xam ne tey moom mooy euh, dialogue politique boobu est ce que nekk na loo xamante ni tey yow si sa gis-gis nekk na lu crédible ci bëtu way politique yi wala ci bëtu. Euh, askanu Sénégal ci ci dialogue politique bi waxuma dialogue national mais dialogue politique bi est-ce que nekk na loo xam ne lu am dayoo la euh, loo xam ne yéen way politique yi sentir ngeen ci seen bopp ak tamit ndax jàpp ngeen ne sénégalais yi dialogue politique bi nekk na lu crédible euh, ci seeni bët. waaw yaakaar nañ ni lu crédible la dañuy fàttali ni rek danoo jënd élection opposition. candidat opposition yi ñoom ñëpp félicité wuñu président bi gagné bi muy président Macky Sall mu nekk euh, jafe-jafe di fàttali ni avant ñuy dem élection nit ñi dañoo jàmmarloo euh, opposition dafa ne woon wóoluwul ministère de l'intérieur bi nga xam ne ni moom moo war yore élection yi li gouvernement bi bëgg a def si affaire parrainage d'accord aussi bu doon ñooma duñu bëgg ñu càmbar fichier électoral bi xoolaat processus bi nommé ay juge indépendant indi beneen nit bu nga xam ne ni du par parloo pour mu jiite ministère de l'intérieur pour ñu dem élection loolu yépp gouvernement bi defu ko Macky defu ko ñu dem élection mu def forcing def parenage mu am euh, ñaar fukki candidat ak juróom-ñaar ñaar fukki candidat ak ñaar yii yépp mu éliminer leen si parrainage gannaaw ba nga xamee ni wax na ni Karim bi nga xam ne moo doon candidat PDS mu ni munul munul nekk candidat def la même chose si xalifa Sall te ñépp gisoon nañ ni xalifa sal ak Karim nekkoon nañu ay candidat yoo xam ne ni bu nu bokkoon si élection élection yi di demee noonu donc loolu yëpp voilà ay candidats yu sérieux donc loolu bi mu ko defee dañu dem si ay élection yoo xam ne nii daanaka élection bu am tension bu rëy a rëy yàllaa si def jàmm wis si ndox mu sedd mais bari na ay nit yaakaaroon ni réew mi dana dana dana sooxe donc euh, contexte boobu la demee mu gagné au premier tour candidat yépp booloo kenn kenn félicité wu ko wax ni reconnaître ñu ko après mu moom si boppam mu woote. dialogue réew mi nag comme réewu jàmm la opposition ni nan la ñuy def comme maanaam sëriñ si xalif généraux yi waxante noo seen njaboot ni lu nu bëgg si réew mi mu dal mu woote dialogue nit ñi dem wuy ji ko mais bi ñu ko wuy jee opposition dafa jël responsabilité ni dafa am lu nga xam ne ni dañ ko doon doon ko doon wax. du ko jooytu. donc comme nee na woote na pour dialogue bi mën na wax si lépp looloo tax opposition dem wuy ji bi nu proposé li tubaab di wax terme de référence yan ponk la ñu war waxtaane alors opposition wax ni man yokk naa si lii yokk naa si lii ñu waxtaan bu juboo si maanaam ay ponk yi ñu war waxtaane alors crédibilité boobu ngay wax. damay wax ni am na crédibilité parce que par exemple euh, report élection yi bu fekkoon ne amul woon dialogue politique boobu opposition bi ni d'accord na si bu ko nguur gi defee da indi coow def na ko benn yoon def na ko ñaari yoon dégguloo coow mais est-ce que est-ce que est-ce que majorité bi ñoo ngi leen di déglu yéen. ci est-ce que majorité bi ñoo ngi leen di déglu xam nga dialogue li tax ma naan la dialogue bu crédible mooy Saliou Sarr tey yow mi fa teewal opposition bi say wax euh, danañ ko jox gëdd ba bañ leen ndax yéen parfois ngeen ne euh, dañ leen di jaay doole wala dañ leen di. weñ seen loxo wala majorité bi lu ko neex lay def. dañuy njortu rek nii dañuy waxtaan bi ñuy waxtaan am nañu ay points d'accord yu bëree bëri. am na waaw am na yu nu d'accordul boo ko dee xool si dàq ñàkk d'accord bi ñaar la wala ñett donc fi ñu toll nii ñun dañuy rafet njort ni mënuñoo toog at ak genn wàll wala lu ko ëpp ñu toog moom mu woote ni dafa bëgg waxtaan ñu ñëw wuy ju ko ñu waxtaan ba jàpp ay ponk yu mel na ni ñuy defee élection maanaam ni ñuy fale maire léegi dafa soppeeku. comme nan la. xam nga bu njëkk ba. Euh, enfin. conseil yi ñooy fal conseil yi ñooy fal. bi yoon dañu wax ne bu dee commune ah. tête de liste majoritaire bi la ñuy fal directement suffrage universel direct maanaam population yi ñooy fal Abdou xaadar wala Saliou wala ki nekk si tête de liste majoritaire donc avant ngay dem élection avant ñuy voter xam nañ kan mooy candidat bi te xam nga kan nga war a fal pour mu nekk maire. bu njëkk loolu amutoon. loolu amul woon. bu ñaareel bi si département yi aussi tête de liste proportionnelle. président président conseil départemental. si ville yi non seulement dañu waxtaan bu delloo si waat ndax xam nga 2014 liste proportionnelle ville dañ ko dañ ko dindi woon par exemple si Dakar ñu wax ni loolu jaaduwul nañu delloo si waat liste proportionnelle si ville yi. comme ne mu nekkoon xam nga liste proportionnelle maanaam. Euh, dañuy wax ni pour nekk conseil municipal dafay am ñaari liste benn bi liste majoritaire la la fa nekk raw maanaam nombre de conseillers fa nekk raw gàddu lay nekk beneen bi liste proportionnelle maanaam euh, bu nu waxee ni juróom fukk la bu fekkee juróomi parti ngeen ku nekk lala sa doole may moom ngay am sa conseiller donc léegi ñu ni ville aussi gannaaw bi ñu delloosee liste proportionnelle boobu dañu wax ni tête de liste ba moom mooy nekk euh, maire de ville ñu wax ni léegi dañ koy def comme département cinquante cinq liste proportionnelle maanaam téeméer boo jël juróom fukk ak juróom liste majoritaire ñeent fukk ak juróom la même chose loolu dañ ko généraliser même si commune yi léegi juróom ñeen fukk ak juróom moom mooy nekk liste majoritaire juróom fukk ak juróom mooy nekk liste proportionnelle xam nga loolu dañu wax ni comme fële raw gàddu la nanu wàññi raw gàddu bi mm-hmm. ah ñu yokk proportionnel bi pour que maanaam parti ma euh, euh, maanaam partie yi mën a bari sa conseil municipal bi maanaam ñu représenté wu mm-hmm. si su population yëpp donc loolu lu am importance la loo xam ne ne am nañ ko accord déggoo nañ si déggoo nañ si ni euh, euh, boo jëlee euh, par exemple si wàllu liberté xam nga boo daawoon di def marche boo defee demande bien que constitution bi wax na ni c'est loo xam ne ni may nañ ko citoyen yi mais da ngay def lettre pour informer euh, maanaam autorité administrative bi préfet bi wala sous préfet boo ko joxee boo ko jëfee lettre d'information ni ko fii ak ñeenti fan dama bëgg organiser marche maanaam sitting devant ministère de l'intérieur bu fekkee ni altine nga ko defoon te loolu nga bëgg ko def euh, samedi moom day xaar ba àjjuma si guddi mu ni la mënul nekk. wala même jour bi même jour bi mu ni la mënul nekk parce que lu tax mu ni awma ma euh, maanaam daal am na loo xam ne ni moo moo tax mënul nekk ñu ne ah loolu amul amul baaxul du démocratie du dooleel démocratie ñu ni comme suñu constitution dafa wax ni am li citoyen am nu def droit def marche. autorité bi dañu koy informer ñu ni nanu encadrer décision wu préfet bi wala sous préfet bi bu fekkee dafa war interdire bu waree interdire ñu def ko maanaam ñetti fan avant euh, manif date bi moom mu joxe maanaam décision am bu dee interdire en ce moment là yow yoon may na la si maanaam ñaari bés yi nga bindaat nga bindaat maintenant boo ko dee bind dootul dem si moom dafay dem maintenant fa mbaxane de benn kooku moom mooy moom mooy moom mooy maanaam joxe dëgg la wala du dëgg. donc kon xam nga loolu. c'est extrêmement important. d'accord léegi Saliou euh, si li ngeen déggoo wala si li ngeen déggoowul ci wàllu wàllu élection lan ngeen déggoo ci parrainage bi ak ci caution bi. voilà parrainage caution yi. voilà parrainage bi moom dañ si waxtaanee ñu loolu bokk na si accords yi si élection locale yi ñu ni parrainage supprimé nañu ko. d'accord ngeen ci. d'accord nañ si caution bi. caution bi ñu ni comme dañuy càmbar évaluation processus maanaam processus électoral bi dañ koy càmbar dañuy auditer fichier bi nañu xaar ba résultat wu. fichier euh, génn ak évaluation bi ñu delloo si waat waxtaanu costion bi donc waxtaanu costion bi nii nii nii yeggagul ndax dañ si teg baaraam ni nanu xaar ba résultat évaluation processus bi ñëw. loolu mi ngi dix millions yi ñu waaw loolu loolu moom teguwul teguwul fenn ndax dañu waxoon ni dañ ko tàmbali na nañu xaar donc comme dialogue politique bi mooy discuter su loolu loolu man damay jàpp ni pour man amagul d'accord donc loolu ñu ngi koy mu ngi mel na bulletin unique bi mi ngi mel na caution bi mi ngi mel na parrainage à l'élection présidentielle mi ngi mel na kuréel bi nga xam maanaam ban kan mooy war a yore élection est-ce que dafay nekk ministère de l'intérieur maanaam euh, ministère de l'intérieur wala kuréel bu autonome boo xam ne ni moom mooy yore affaire élection ak maanaam rôle et place de la justice maanaam si wàllu processus électoral yooyu juróomi ponk yooyu dañu wax ni bu audit bi pare ba évaluation bi ñëw ndax audit bi pare na évaluation bi mi ngi ñëw si bu weer wi deewee nii euh, maanaam juin euh, juin lay la la conclusion yi di ñëw foofu la nuy waxtaanee ponk yooyu ma la wax. Ah, léegi euh, jërë ngeen jëf mbokk yi yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi tey ñoo ngi invité Saliou Sarr mu bokk ci taxawu Sénégal moom moo représenté wala mooy coordonnateur opposition bi ci dialogue politique bi léegi Saliou euh, yan ponk moom ngeen déggoowul ak majorité bi ci dialogue politique bi. waaw ponk yu ñu déggoowul mooy euh, maanaam njiitu réew ndax war naa nekk. chef de parti. alors bi ñu ko waxtaanee opposition non alignée comme société civile ñëpp danoo d'accord danoo indi ni bu fekkee démocratie lu nu bëgg njiitu réew waratul nekk chef de parti ndax bu boobaa doo xam koy waxal doo xam koy waxal surtout que benn article bu nga xam ne nii su code de procédure pénale ak code pénal article quatre-vingt code pénal euh, boo maanaam ni Macky nekkee président nekk chef de parti xam nga dafa nekk par parlo mhm. donc. Euh, ku doo xam koy waxal. waxal boo waxee Macky li mu def amul tegu ko yoon dafa maanaam nangam nangam ñu ne le président ngay waxante. offense au chef de l'État. ñu ni pour mën a effectivement démocratie mën leer nanu xaajale. président de la république ak chef de parti président moom boo ko xasee nekk rek nga bañ nekk chef de parti mais ñoom ñu bañ comme si waxtaanu dialogue politique bi dañuy wax waxtaan bu juboo la. kenn du voté. ban ban lañ jàng lànka ah. ban ngeen juboo ñàkk juboowaat. Euh, beneen bu ñuy ñàkk jubo waat maanaam nan la ñuy def pour déterminer euh, maanaam chef de l'opposition. déggoowu leen ci déggoo déggoowuñ si. ak banaat. Euh, daanaka daanaka ñaar yooyu. fichier électoral bi nag euh, lan ngeen si d'accord ci fichier électoral bi ndax dañuy faral di wax ne opposition bi pour ñu jot ci fichier électoral bi léeg-léeg dafay faral di yeex wala duñ si jot. waaw loolu moom euh, yoon moo ko maye moom moo ni parti politique ak Sénat yépp war nañu heure bu leen neexee ñu dem xool fichier bi pour seet nan la nan la toogee. mais daanaka euh, maanaam nguur gi day bañ audit bii nag jénne nañu jox nañu ay éléments yi nga xam ne nii xam nañu léegi lu tax nguur gi doon bañ. doon bañ lan. Euh, parti politique di ñëw di càmbar di xool fichier bi daanaka dañu constater ni ndeketu yoom ñoom dañuy coow rek mais fichier bi sax ci seen bopp ñoom yoruñu ko nu ko war a yore sa maanaam. benn jaamuru yàlla bu tudd euh, benn société affice ca Malaisie ca Malaisie. moom ndeke moo géré fichier bi ndeke moom ñoom loolu la ñu bañoon ñu xam ko. information yooyu. voilà léegi nag xam nañ ko ndax gis nga tey euh, auditeurs yi nga xam ne ni jaamuru yàlla yi ñu jëloon ñu nekk ñeent. toog na nañu weer bëgg a jot maanaam. su fichier bi mënuñu koo jot. dañuy dañuy bind. waa Malaisie waa Malaisie toog di xaar ñu tontu leen. mais loolu ah. garaaw bu bu garaaw lu garaaw la parce que réew mi day na Sénégal président de la république toujours di wax ni souveraineté sunu réew du nu nangu lii même CEDEAO bii nga xam ne ni moom la ñu bokk barki Dembo Ndiaye bi mu waxee ni parrainage élection présidentielle ni ngeen ko defee baaxul dindi leen ko dañu wax duñu ko def parce que sunu réew dafa souverain ndekkee suñu ay données personnelles de plus de six million sept cent mille personnes sénégalais ña ngi koy yoree sa bitim réew sa Kuala Lumpur kooku donc problème de souveraineté bu rëy la boo xam ne nii euh, audite bi jënd na ko dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a vraiment régler parce que lu garaaw la. d'accord jërëjëf euh, Saliou Sarr dinañ ñëw ci euh, fichier électoral bi ak. élection locale yi dana si ñëw bu baax a baax a baax a baax ndax ma waral sax euh, invitation bi mais dañu bëgg arrière tuuti rek ci benn point boo xam ne déggoowu leen ci muy point boo xamante ni tey bu am solo la ci ci démocratie euh, te président mag sàll moom moom moo ko digoon euh, moo ko digoon askanu Sénégal kane su jiitee réew mi du nekk chef de parti tey par exemple tey da nga gis benn mënoon naa jox exemple ci xalifa Sall joxe exemple. ci ci ci Karim Wade wala ma joxe exemple ci ci Abdoul Mbaye da ngay dégg tey militant boo xamante ni tey militant APR lay nekk di wax ne Karim Wade sàcc la Abdou mbay nangam nangam te tey militant bu xalifa Sall bu jógee bu ko waxee en tant que Macky Sall chef de parti APR na sàcc la wala nangam ñu ne ko président président ngay waxal article quatre-vingt ma ngi nii loolu bokkul ci loo xam ne. dafay dafay ñoŋal démocratie beneen bi Macky Sall euh, dafay wax loo xam ne euh, réew mi la soxal mu koy waxee ci instance su euh, APR instance su partem wala tey muy waxee loo xamante ni tey partem kese la la la ñor mu koy defee ci biir palais de la république mu nekk loo xamante ni exactement loolu dafay nësaxal démocratie te doo xam exactement kan nga ci waxal point boobu lan moo tax insisté wu leen ci Salif Sarr. waaw mais insisté bu baax a baax a baax ndax loolu. Eh, général ñaa yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare àjjana point boobu dafa bañoon ñu am si eh, désaccord looloo tax waxtaanee nañ ko ay yoonu yoon maanaam dañuy wax ne benn point objectif spécifique ñaari séance lañ koy def ndax dañu daawoon di daje talaata ak alxemes point bu nekk dañuy wax ni al talaata ak alxemes bu fekkee yi àggul ajjuma si ñu ñu maanaam ñu waxtaane ko dernière fois àjjuma bi mais li ma lay wax nii waxtaane nañ ko lu ëpp weer. point boobu point bii article maanaam chef de parti chef de l'État amul lu leen jënnelul cest à dem nañu si bitim réew wane leen réew yi nga xam ne ni démocratie dafa màgg que amul fenn foo xam ne ni président de la république chef de parti la même boo jiitee liste boo demee ba nu fal la président de la république rek. après da ngay bàyyi parti bi keneen jël ko mais ñoom ñun ñu ni mm-hmm. ñoom danoo danoo danoo bañ. Mm-hmm. ñoom dañu nii carrément Macky Sall nee na bien que moom. Mm-hmm. daf ko doon wax avant muy ñëw. waaw ah. bi mu nekkee opposant mais dafa ni nu euh, Macky nee na euh, président nee na bu ko defee dafa mel ne dafa trahir ay ay ñoñam c'est-à-dire que moom wax na ba dem nekk président après léegi. Euh, bàyyi parti bi bu boobaa euh, pëcc pëccaxoo. pëccaxoo mooy am mais xam nga loolu du ko jiite mais ba tey ma nga sa parti xam nga loolu moom moom moom moo tax du du démocratie mi nga xam nga mi ngi mel na euh, bërki démb Ndiaye rek bi ñuy waxtaan si kañ la ñuy def datu élection yi xam nga ñoom bi ñuy ñëwee loolu am na ñu nu ko reproché effectivement si dialogue bi bu nu bëggee reporter dañuy ñëw waxaan ak ñun. ñu waxtaan ba juboo ñu ni ah ñëpp d' na nañu opposition bi d' accord ñu reporter mais bu ñu waxee ne d' accord nañu reporter kay boo dee reporter nga laaj ko opposition mais boo waree fixé da nga war ñu laaj opposition. Mm-hmm. ñu yeewu suba rek mu wax ni février au plus tard non non dafa ni d' abord février plus tard. Mm-hmm. opposition suspendre participation si dialogue bi mu reculer tuuti ne au plus tard 31 euh, janvier mais ubbeeku naa ci date bi. kër commission politique na waxtaan bu nu waxtaanee euh, luñ ma proposé danaa ko jël. ah ñun ñu dellu si wax yaakaar ni loolu dëgg la si ñoom. mais bi nu ñëwee dellu see waxtaan si biir commission politique bi euh, majorité dafa ni proposé 23 janvier. opposition non alignée société civile wane ni nii mën na nu ko organiser décembre le 19 décembre au plus tard. waxuma ñu sax 19 décembre am na ñaari ay ay ponk yoo xam ne nii revue code électoral bi ak euh, révision processus bi bu ñu ko defandoo mën nañ fa am économie ñaari weer mën nañu sax organiser élection yu novembre. Ah, techniquement matériellement yéen jàppoon ngeen jàppoon nga mën nañ nekk. mais bi ñu demee président war arbitré mais 23 janvier bi pôlam waxoon. Ah, moom la jël ça veut dire que moom c'est le chef de parti ah moom moo agir donc pour wax la ni la chef de parti. ak euh, nekk président de la république si démocratie Afrique yu sooxe yi rek la am la des. léegi euh, Saliou Sarr euh, yow yaa ngi wax sànq date boobu nga xamante ni tey yéen jàppoon ngeen ko mooy yéen man bu leen majorité bi nawloo tamit dina ma jaaxal ndax yéen tey bu ngeen waree dàq élection yi ñu woo leen ngeen ñëw ngeen d'accord si ñu fësal ko si Euh, journal officiel wax ko fépp na opposition bi d'accord na pour ñu reporter élection yi mais bu ñu demee ba nga xamante ni tey war nañoo jàppaat daru élection yi mais war nañ leen ko yëgal mais yéen ngeen jege-jege yëg ko ci presse bi ah, fan lañ leen respecté waa non xam nga loolu lool loo loo loolu moom moom laa wax léegi mais xam nga loolu rek mooy wane ni euh, ñi nga ñi nga séqal ñi nekk en face ah ñun ñun wóoluwun leen mais bu nu ko waxee dañu wax ne eh parce que ku jéngeen rek par par loola moo tax wóoluwul leen ñu bëgg a won nit ñi si jëf ni ah liñ leen doon wax ni ñii kat jaruñoo mi ngi nii. ah loolu ngeen si jublu. waaw loolu leen si jublu. pour que non non yàquñu si der dañ leen di won pour wan ni ne nous sommes pas li tubaab di wax naïf ñu ngi yore suñu xel de ñu ngi foog. ndax ku ndóbin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw mais nanu wax ni rek Sénégal yi ne ah ñun de sunu axulaay taala ñëw nañu pour wuyu ko waaye chaque fois nga xam ne nii waxtaan ngeen ndax xam nga boo demee ba ni yow yaa woote waxtaan opposition non aligné société civile yépp wan leen ne ni la leen bokk benn benn benn benn benn benn yoon normalement bu fekkee ni li nga doon wax waxtaan dëgg la si yow da nga ko war a fekk si mais boo ko fekk si lee ñun dañuy waxaat ah ñi leen ah gis ngeen de defaat de maninam donc ëllëg bu nuy wàcc si mbedd mi wala di ko di ko di ko ŋàññi c'est parce que effectivement dañ ko war a ŋàññi parce que moom lépp lu mu la wax du ko def loolu nag dañ koy won population bi et en disant que du tax ñu xaru du tax ñu taal dëkk bi mais comme réew mi dañu dañu mànkoo ni bu ñu demee ba war di tànn maanaam di jël jël njiitu réew wala di tànn gox-goxaat élection lañ koy defee ñu won leen ni leen ñii du ñu sàmm seen kàddu pour wane ko. waaw mais Saliou euh, Sarr yéen tim yéen opposition bi euh, dafa mel ni kenn xamul lu ngeen bëgg ndax yéen décembre ngeen wax euh, décembre janvier xam nga loolu presque benn la wala janvier bi eh, bi nguur gi doon wax bu njëkk février mais décembre janvier presque loolu benn weer la lan moo tax ngeen nangu décembre nangu leen janvier bi. xam nga xam nga lu tax ñu ñu ñu ñu insister ci décembre bi. parce que bi ñuy discuter ci dialogue bi beneen point la boo xam ne nii ñoom seen wax tarul taxaw warul tax nga dóor sa doom ñun dañ ko daf ñu daf ñu daf ñu wér mais chaque fois dañ ko war a montrer par l'exemple peuple bi gis ko ñu xam ne ni ñii lépp luñ la wax duñ ko def ñun ñoo demoon ni dialogue dañuy càmbar dañuy def audit fichier dañuy def évaluation processus loolu temps lay jël dem nañ ba fii nii nii nii nii mu war dem Euh, ba àgg si mois de juin te ñun ñoo waxoon ni ñun ñëpp de y compris pour de la majorité que élection bi 2021 bu mu ko jënd ñëpp d'accord si la respect li tubaab di wax la respect du calendrier euh, électoral waaw bu fekkee ni ñun nangul nan leen ni pandémie bi ñëw na toog nañu juróom benn weer mbir réew mi dafa taxaw tax na élection yi 28 euh, mars au plus tard bi nu waxoon mënul nekk mais na resté si deux mille deux mille vingt et ñu d' accord si. léegi d' accord nañ si. ñu ngi yore PV yi nga xam ne nii les PV te ñun binduñu ko administration mooy secrétariat les PV validés yoo xam ne nii position pôle bu nekk dañ koy def mu ni d' accord na si. waaw ba waaw ba léegi ñu ñëw mu ni deux mille vingt deux ñu ni ko 2022 bi Saaliw xaara Saaliw tuuti yéen euh, waxtaanoon ngeen euh, ci ci dialogue politique bi ci élection législative euh, élection locale élection locale pardon kane du génn 2021 yéen opposition bi ngeen d'accord ci société civile bi d'accord ci majorité bi d'accord ci ngeen bind loolu non aligné d'accord ngeen bind loolu lépp signé teg loolu lépp amoon na waaw loolu amoon na looloo tax ñoom ñu génn ci. loo loolu xamuñu xaw ma nag maa ngi leen di tooñ di leen wax ne xëy na seen sëriñ moo leen wax bu leen def élection deux mille vingt et un ñu <laughs> waaw mais xam nga ñoom seen signé euh, wekkuwul si dara ma. Ah, Macky Sall wo waxoon na la ni la si premier mandat bi mandat bi may def juróom-ñaari at la waaye danaa ko wàjj juróomi at gis na lu mu mujjee. donc kon loolu moom eh, miis nañ ko. mais dama ñoom seen signature wérul seen kàddu wérul. wérul <laughs> waaw xam nga léegi lu lu et puis li si intéressant ñu ngi rey mais c'est sérieux ndax xam nga bu fekkoon techniquement. waaw ah. ndax xam nga dañ ñeenti étape moo am. c'est-à-dire dañu wax ne bu évaluation bi jeexee. Mhm. li si topp li ñu war def mooy revue du corps électoral. beneen bi si topp mooy révision des listes électorales maanaam ñi war a bindu ñu bees. bindu ñu am léegi fukki at ak juróom-ñett te bindu wuñu ñu war a bindu ñi nga xam ne dañu bëgg a changer adresse ñi nga xam ne ni militaire la nu woon booba te nekkatuñu militaire changement de statut yooyu yëpp ñu war bindu mu nekk ñett ñeenteel bi mooy yoon dafa wax ni bu nu waree dem élection quatre-vingt-cinq quatre-vingt-cinq jours avant dañuy la ñuy def dépôt de candidature loolu yëpp donc dafa war a am temps bu mu jël mm-hmm. ñu xayma ko ñu ni leen Euh, euh, bu euh, évaluation bi jeexee revue code bi ñu ni administration ñaata ñu ni lu mu bari bari bari ñaari weer ñu ni waaw ñu ni revue révision de listes électorales administration ni lu mu bari bari ñaari weer ñaari weer ñu ni dépôt ñu ni ah loolu moom yoonoo ko wax quatre-vingt-cinq jours xam nga kon dafay nekk à peu près ñaari weer ñaari weer mu nekk ñeent ak ñaari weer ak nangam mu nekk moyen de sept mois ah ah ñu ne ñi ngi mois de ñu mois de mai mm-hmm. waaye kon kay mën naa nekk décembre mm-hmm. ñu ni nag comme boobaak léegi ñu ngi def dialogue politique mais revue code bi mën naa bañ àgg ñaari weer mën na nekk maximum weer président Majib Ndiaye bi nga xam ne ni moo jiite comité bi ni man mos naa jiite ñaari yoonu affaire revue euh, électoral mais euh, maanaam waxtaanu euh, revue code bi maanaam article yi ñu war changer ci code électoral bi ak commencé inscrit ci liste électorale mën nañ ko defandoo donc kon kay foofu daan fa def économie ba lu mu bon bon benn weer. donc si juróom mu nekk 6 mois. Ah. donc mën na nekk décembre. Mm-hmm. ñu ni ñoom déedéet. fole lañu dem ñun leen lu tax ñun bugguñu ndax li nga doon wax la ma ñëw si nag lu tax bëgguñu woon mu dem février. wala même euh, janvier deux mille vingt deux xam nga deux mille vingt deux dafa am élection législative te foofu aussi dafa am boo defee élection ba noppi bala ngay dem élection dafa am loo war a def. Mhm. lu mu bon bon dépôt de candidature dana am yoon moo wax ni lu mu bon bon bon bon révision exceptionnelle des listes dana am. te mën naa jël 7 waaw ñu bañ mu jël délai boo xam ne nii dañuy waxati encore reporté nañu élection législative moo taxoon bu nu reste bu ñu resté woon si decembre deux mille vingt et un ah, diggante bi ak fële dafay nekk juróom-ñaari weer comme révision exceptionnelle rek a fay am lu mu bon mën nga koo def benn weer. dépôt de candidature bu fekkee ni weer ak genn ñaari weer ak genn wàll la amul benn problème élection législative kenn du ko laal donc ñun loolu moo taxoon du question weer bi waxtaan nañu ba mais ce problème bi mooy élection législative yi la nu bañ mu laal surtout que nag uh-huh. si diggante bi entre élection locale ak élection législative dafa am élection au conseil uh-huh. donc est-ce que war nañu Sénégal oui uh-huh. donc est-ce que war na noo toog di fexe Sénégal si benn at. si juróom-ñaari weer ñetti élection di si am. loolu baaxul si réew. d'accord mais mais mais Saliou mais Saliou loolu lan doon loolu lan doon bañ. loolu noonu loolu loolu doon bañ mais comme comme comme moom. moo war décider moom la ñu fal. moom moom jan euh, du gentleman ndax xam nga nit ki dafa yoon gar voilà gar mi gar mi si waxam daf koy sàmm. boo waxee ni dama bëgg a waxtaan boo euh, da ngay bëgg a jël waa da nga war a jël. ma xalaatu sa opposition loolu du ñàkk fulla au contraire dooleel démocratie la. mais mais euh, Saliou Sarr est que tey yow euh, xam ngeen ne euh, bu makki sàll organisé tey élection locale yi ci 2022 bi diggante 2022 si même at at bi nga organiser élection au conseil des collectivités territoriales bëgg fi organiser waat ay élection législative dafay nekk loo xam ne Macky Sall sax bu ko neexee taafantaloo ne mel na at mënuñ si organiser ñetti élection te bu boobaa mën naa yey sénégalais yi ci loolu déedéet mënu ko yey ndax wax nañ ko ko. wax nañ ko ko et ñoom encore une fois ñoom ñoo ni nañu respecter le calendrier électoral et le calendrier républicain. maanaam est-ce que jàpp nga ne yow loolu mën na faa mën naa nekk. normalement mën naa nekk ndax même léegi. maanaam bu ñu defoon élection locale 2022 bii janvier 2022 ndax yow Saliou Sarr même boo si génnee waxu politique est-ce que jàpp nga ne ci 2022 boobu élection législative mën na ci am. war na mën na see am. techniquement techniquement mën na see am ndax xam nga ñaari délai moom laa wax. ni la xam nga comme def nañu revue du code électoral. waaw code électoral bi changé nga ko avant ngay dem élection locale. danuy njortu ni fii nga élection ba la jëm dootul am changement donc ñaari étape rek ñooy am. révision exceptionnelle des listes ak dépôt de candidature comme fii nii euh, révision def nga ko ci euh, avant juróom-ñeenti weer boo dee defaat révision exceptionnelle du yàgg mën na ndax gis nañ fi ay révision yoo xam ne ni ñaar fukki fan la. donc même boo jëlee weer révision exceptionnelle nga jël euh, ñaari ndax soixante dix jours élection législative soixante dix jours la dépôt de candidature uh-huh. même donc da ngay jël ñaari weer ak fukki fan ñaari weer ak fukki fan ak benn weer sa fay nekk ñetti weer ak fukki fan mais diggante janvier ak euh, juillet donc daanaka juróom benn weer la donc mën naa nekk techniquement donc du waxu politicien ndax man samay wax sax lu si ëpp ñi ma xam ni man du ma wax politique ndax lépp lu may wax techniquement dama ko bëgg de ne techniquement teg sama baar. d'accord mais Saliou euh, Sarr xam nga yéen opposition bi yéen euh, dafay am benn incohérence bu bari boo xamante ni parfois dañ koy faral di gis ci yéen ci seen euh, ci seen doxin wala seen comportement si dialogue politique bi ndax yéen su dee da ngeen a signé ak majorité bi non aligné yi société civile bi ka ñoom ñëpp. ay ay experts ngeen xool kane 2021 bi mën ngeen faa organiser élection locale ñoom ñi ko signé woon seen signature ñu teg ko ne la ak signature ni mu foore Macky Sall waxoon fii ne euh, du nekk chef de parti bu jiitee réew mi loolu tamit gisuñu mu mu ant mais dama déglu yéen ci ñenn ci opposition bi ñu ne dañoo bëgg euh, ñu jox leen ay garantie ci élection locale yi ne leen su amee ci 2022 jox leen ay garantie que ne mille vingt 2022 boobu du ñu dàq élection législative yi yéen ñooñu nan lañ leen mën a joxe ay garantie même yéen bu ñu leen waxoon bu ñu woon ne leen 2022 boobu législative dana ci am mais Saliou avant signature boobu am na beneen signature bu ñu respecté wut kon yan garantie lañ leen jox ak lan moo tax ngeen di laaj ay garantie si ñoo xamante ni yéen nee ngeen seen i kàddu wérul seen i signature waaw xam nga ñun dañu jàpp ni réew dañ koy pencoo ndax réew ñun ñëpp ko bokk. nit ki ma sàmba wala ma demb dafay am moment ñu dénk la nga nekk njiitu réew pour nga liggéey pour Sénégal période boo ngay liggéey ah ñun opposition suñu war-war mooy ni nga bëgg a liggéeyee ci Sénégal moom la ñuy càmm moom la ñuy xool pour wax ni baax na wala baaxul waaye du pour jël nit ñi dem si mbedd mi pour dem buntu présidence bloqué ni doo doxal looloo tax ñun duñu privilégié opposition penco penco boobu nag muy waxtaan consertation moom moo tax bu wootee ñu wuyu ko naa am nag dañuy wax ni gi def na wax na mu dañu waxaat na mu dañ ba tey du dañuy continuer di waxaat pour jéem a convaincre ko bu waxaatee ba jël engagement engage boobu moom bu nekk looloo tax euh, bu buñ ko dee waxanteeg moom ni ko wax jox ñu garantie dañ ko bëgg mu wax ko mu jóg. Sénégal yi Sénégal yee dégg ko. boobu noppi ñun aussi ñu topp ko bu ko bëggee wàcc ñu ne leen ah waxoon na ko. bu fekkee tiiñal ko bu fekkee ne continué na bu nu demee élection bu fekkee ni population yi d'accord nañu ni kii kat du sàmm kàddoom bu ñu ko waree sanctionné ñu sanctionné ko. mais yéen daal seen rôle yéen a koy def ba mu mat. loolu la sunu role moom mooy euh, maanaam wax. alerter ah euh, artu ah euh, junj leeral maanaam tegtal pour intérêt réew mi. d'accord léegi euh, Saliou Sarr yéen pare ngeen pour dem ci ay élections ay élections locale ndax gis naa ñu baree bari ñoom front résident national bi ñoom. dafa mel ni daal am na lu bari lu ñuy contesté ba tey nii yéen ndax jàpp nga ni daal élection locale yi dañ ko opposition bi dañ ko war a côté wala dañu war a dem ci élection yi. ba léegi effectivement li nu war a li ñu contesté bare na bare na trop. lan ngeen euh, maanaam si fichier bi ndax xam nga li nuy li ni li li doon wax euh, càmbar si fichier bi euh, ni ah ñun kat dalal suñu xel ni ñu ko ni ñu ko yoree bëggoon nañu ay jàmbur yàlla ñëw seet ko jàmbur yàlla yi bu ñu ñëwee contrairement li nga xam ne nii moom la conclusion boobu ñuy wax. di wax ne le fier le fichier est fiable jaamur yàlla yooyu dañu wone ni am na ay rëq-rëq-rëq yu bari yi nga xam ne ñu ngi si fichier bi. ndax comme yan par exemple ñoom dañu wax ni ñu ngi utiliser ndax loolu nag xaw ma nu ma koy waxee si wolof logiciel bi ñuy utiliser pour càmbar maanaam euh, ndax nit ki mu ngi fi ñaari yoon wala ñetti yoon. Hmm. mu ngi tudd af waaw doublon yi mi ngi tudd affiche. Euh, ah, logiciel boobu duñu wax ni du suñuy wax de au niveau international la dañu wax ni dafa am lu ñu taux taux d'acceptation véritable maanaam taux boo xam ne ni boo ko amee mm-hmm. ah dañuy wax ni dëgg la dañ ni dafa war a nekk euh, quatre-vingt-dix-neuf virgule six pour cent mm-hmm. quatre-vingt-dix-neuf virgule six pour cent supérieur ou égal à 99 virgule 6 pour cent maanaam marge de tolérance bi. 0 virgule. 32 pour cent la 0 virgule maanaam matul benn. waaw waaw waaw comprendre naa. ñoom ñu génn ni bi ñu càmbaree fichier bi fekk na si fukki yoon. doublon du maanaam euh, tolérance boobu 96 virgule 6 pour cent la. 96 virgule 8 pour cent la pardon mm-hmm. non 96 virgule 6 67 donc 96 virgule 7 pour cent ça veut dire que euh, erreur yi bu nu waxoon ne dafa waroon nekk benn mm-hmm. trouvé nañ ci fukk mm-hmm. moom moo indi boo ko kiiyee mu nekk lim bu ëpp deux cent quelques mille euh, euh, personnes ñaari téeméeri junni yi nit yoo xam ne ni am na ay nit yoo xam ne ni sax ci biir dañ lay wax ni le demandeur absent maanaam yow sa empreinte nga fa waaye yow nekkuloo fa donc mu nekk affaire bu doy waar. beneen bi ñu wax ne ñu gannaaw bi ñu demee élection présidentielle 25 février 2019 diggante 25 février 2019 entre 25 février 2021 am na lu ëpp ñeent euh, ñeenti téeméeri junniy nit. ñu bindu yu am seen carte électeur te carte électeur yooyu yaa ngi mi ngi possible bu fekkee am na li ñu tuddee révision annuelle wala révision ordinaire wala révision exceptionnelle. maanaam ubbi ubbi ubbi oh, mi. ubbi mbind mi amul. Mhm. ñu am 400000. ça veut dire que fu ñu jaar ñetteel bi. te te bu ñuy ubbi loolu dañuy informer dañ koy ay commission administrative la commission yi préfet yi ñooy déjeuner ku ko jiite parti politique yi dañ fa am représentant te loolu ñëpp xam na ni amoon. 400000 personnes ñoo bind. waaw plus de 400000. donc kon boog ñun. ak lan audit bi wanewaat. Euh, audit bi wanewaat mooy. ñun dañ ko waxoon ni ko ñoom nee nañ bëggoon nañoo rencontrer waa conseil constitutionnel euh, sottiwul ak am accès si aussi euh, logiciel parenage bi tamit mënuñoo am mënuñu ko waaw boobu loolu <laughs> mu nga noonu ñu ni leen càmbaral leen ñu affaire euh, système de parrainage à l' élection présidentielle ndax xam nga doon ko commencé woon discuter wax naa leen ne la si local yi moom fukki minute ak juróom rek pouvoir bi d' accord ne ni moom mënul nekk élection locale nañ ko dindi waaye élection présidentielle comme du dañuy audité nañu xaar ba nu ba nu ba nu ba nu audité bu boobaa ñu si doog a waxtaanaat mais boo dee audité kay auditeurs yi kan moo defoon parrainage bi conseil constitutionnel moom la yoon joxoon ni ko yaa koy def mu war wut euh, jaamuru yàlla boo xam ne nii dafay ñëw indi euh, logiciel am pour boo indee ce système de parrainage mu xool ndax baax na ah ñooñu naturellement bind lettre. ni dañ leen bëgg a pour xool nan la nu defee parrainage bi ba léegi ba sànq. ñu non seulement tontu wuyu nu maanaam euh, recevoir ñu leen mais tontu wuñu sax seen lettre xam nga kon am na lu ñuy nëbb. beneen bi dañu waxoon audit sur pièce et sur place maanaam bi yoon bëgguñu rek auditeurs yi dem ministère de l'intérieur dem dajeeg technicien yu daaf bi wala euh, ñeneen ñi déedéet duñu bëgg auditeurs yi dem si yenn gox-goxaat yi dem jël list d'émargement yi comparer ko ak fichier bi pour xool est-ce que effectivement li opposition doon demande di wax di ŋàññ di wax ni am na ñaari fichier am na ñetti fichier am na ñeenti fichier ndax dëgg la loolu pour def ko ndax opposition daf leen wax ni leen gis nañ ni lu ëpp si ñaari téeméeri dëkk nombre d'électeurs yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk yi ñoom ñoo dépassé population bi war a bu am age de vote maanaam boo jëlee dëkk bu mel na euh, Dagana. Mm-hmm. nga ni population bi war a. Euh, population bi cent mille personnes lañ. non population bi war voté. ñu ni ñaa euh, vingt mille la. ñeenti junni nit la. ñoom ñoo am dix huit ans et plus. Mm-hmm. nga ñëw ci fichier bi ñëw nga ñëw si fichier bi mu nekk vingt cinq mille wala trente mille. Mm-hmm. ñu leen mais ñooñu fu ñu jógee. ndax quand pour bindu si liste électorale bi dañuy wax nii da fa war a juddoo. wala nga am fa euh, sa ay maanaam sa baay wala sa yaay mu dëkk nekk sa dëkk ba wala yow nga résider sa dëkk ba wala nga am benn lien économique nga fay fay impôt wala nangam nangam loolu yépp ñu ñëw ñu xool ko ñu gis ne si ñaari téeméeri dëkk am na dëkk yoo xam ne nii da ngay dem sa Fuuta nga xam ne ni seen ñoom dëkk ba xam nga amul dara nekku fa seen ay population ñu si ëpp ñu ngi nekk Dakar di jaay socc wala nangam ñu baal ma mais nga nga nga nga nga nga comparer seen liste eh, nga gis fa lu ëpp ñeenti ñeenti junni nit yu ñëw yokku si ñi nga xam ne ni potentiel eh, maanaam ñi nga xam ne ni ñoo fa. ñoo fa donc yooyu. mën naa la ko expliquer si beneen cas mën naa nekk comme par exemple tey li nga bëgg a expliquer foofu mooy benn euh, salle de classe boo xamante ni tey trente élèves ñoo fa nekk war a def examen examen ñëw ñu xool ne quarante personnes ñoo def examen yi. loolu nga bëgg a loolu mais yéen euh, dama liir tamit ci auditeurs yi li wax nee na ñoom euh, certificat de résidence yi. waaw ñoom laa bëgg a ñëw ok d'accord loolu donc dama wane nii donc xam nga nit ñi boo boo bu fekkee ne danga gis ni ñi bindu ñu ñoo ëpp ñi waroon nekk. ok comprendre voilà donc da nga war xool fan lu jóge mhm. ñun leen dem leen seet ko surtout que. auditeurs yi wax nañ loolu. waaw waaw ñu ni leen dem leen seet ko xam nga pour donc ñu dem seet ko il faut ñu am euh, maanaam statistique population bi dafa am benn kuréel benn direction bu tudd agent national des statistiques de la démographie ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom la ñu sant ñoom chiffre bu ñu joxe si population rek dañuy wax dëgg la ñu dem ni leen jox leen ñu nan la euh, maanaam si dëkk yi nan la nan la population bi tëddee si wàllu ku am benn at ba ki gën a ki mag sa dëkk ba nee nañu ñoom amuñu statistique wu <laughs> structure <laughs> par âge de la population donc xam nga loolu dañ leen bañ a jox encore la ba données yi pour que bu ñu demee ñu mën càmbar pour wane li opposition opposition dëkk mais li nga xam ne ni leneen lu am importance lu auditeurs yi génne mooy nee nañu daanaka lu toll ci un million ak genn wàllu nit bindu nañu ci fichier électoral bi ci ex extrait de naissance ak certificat de résidence te ñun dañ leen waxoon ni leen laajuñu leen fichier bi ndax logiciel bi baax na duñu bëgg ngeen won ñu élément maanaam données yi servir maanaam li nit ñi di indi. pour bindu pour bindu ndax baax na. Hmm. te pour nga bindu pour mu baax lan ngay indi. da ngay indi soit si si refonte bi dangay indi carte d'identité numérique eh, pardon numérisée bi ak certificat de résidence bu fekkee da nga bëgg changer adresse fi ngay bindu wala ñoom loolu rek la ñu waroon indi ñu dem ba sa yàgg ñu boole si nii nii noonu si boole carte d'identité na maanaam extrait astafurla extrait de naissance foofu nag la mbir mi ñëwee ndax bu boobaa ndax xam nga machine bi dañuy wax ni xam nga boo ko fàttali koo pour dem bindu sa carte d'identité euh, CEDEAO yi sa fukki baaraam ngay teg mais da nga koy tegandoo ñeent ñeent ak ñaar mooy 4 2 4 4 2 mais boo indee teg sa maanaam sa ay sa ay baaraam muy empreinte yi moom daf koy photo photographier bu ko photographier daf koy yóbbu si benn panier bu nga xam ne ni moom la tubaab di wax base de données mhm. mu wax ni fii de junni emprent nga fi am naa bu bees est-ce que bu bees bi may indi niroowul ak beneen si biir pañe bi wala si saaku bi bu fekkee ne am na beneen déjà bu niroog moom bu fa nekk daf koy rejeter bu fekkee ne amul mu dugal ko si donc noonu loolu moom mooy moom mooy am mooy loolu donc ñun xamoon nañ ni euh, logiciel bi ñëpp d'accord nañ si àddina bi ni loolu moom moo si gën a xarañ waaye moom boo ko indilee sa empreinte du la wax nit ki ñëw indi empreinte am atam naan lan la munu koo xam donc kon kay voilà donc kon kay këyit bi ngay xam ne ni moom ngay indi nii mhm. Abdou Khadre am na ñaar fukki at ak juróom mhm. boobu moom la mat a seet la ñépp gis na ni sa élection yu passé gis nañu ay xale yu tuuti rang fuuta yore seen carte électeur li tax mu mën a nekk c'est parce que ba ñuy bindu dañ leen jox extrait de naissance bu ba nga xam ne ni danu yokk seen at. d'accord comprendre naa li nga wala ñu jox leen certificat de résidence bu nga xam ne ni dëkkuñu fa woon ñu jox leen ko. waaw mais mais yow Saliou mais mais ça logiciel bi logiciel bi kii kese la mën a vérifier empreinte yi kese la mën a vérifier. loolu looloo tax ñu wax la ni la looloo tax ñu wax auditeurs yi opposition yi mënuloo constater loolu yépp ba noppi dem ci fin ba di bind ni le fi le fichier est fiable. donc ñun laajuñu woon loolu ñun li ñu laajoon moo ne maanaam yin ko jox pour mu mën càmbar ko ndax normal na te moom moo wane ni moo wane ni ah ay la yëwan gannaaw Sénat wax ko dëgg la ni affaire extrait de naissance yi am na njublan mhm. looloo tax nee na si recommandation nanu unif na maanaam nanu informatiser état civil bi si affaire certificat de résidence mu ni waaw am na ay njublan léegi ñoom lu ñuy na nu dindi nanu voilà nanu dindi loxo. maire yi yi si affaire certificat de résidence ñu dénk ko a wala police. wala ama bu mënul loolu mënul nekk. ñu ñu jox ay moyens SEDA maanaam SENA. ay moyens yi nga xam ne nii ku indi certificat ñoom certificat de résidence ñoom daanu ko càmbar pour xool ndax baax na wala baaxul. te loolu damay wax ne rek. mais mais Saliou mais Saliou euh, vraiment experts internationaux yi tamit yaakaar na ñoom tamit yab nañ euh, askan Sénégal yow nan nga mën a càmbaree ab fichier nga ne fichier bi dafa fiable. ak incohérence yi nga ma wax nii yépp yoo xamante ni tey ma ngi si fichier boo xamante ni yow après élection lu toll si ñeent téeméeri junni ci ay nit bindu nañu te waxtu woo xamante ni ubbiwuñu li nga xam ne mooy mooy wàllum bindu mi am ñoo xamante ni tey def nañu ay transfert wala inscrire nañ ci fichier électoral bi ci ay extrait de naissance loolu euh, fan nga mën a sukkandiku ba ne fichier boobu dafa fiable. waaw loolu xam nga looloo tax moom loolu loolu moom ñun dañ leen di féliciter. si élément yi maanaam euh, liggéey bu rafet bii ñu liggéey ba jënneel ñu rëq-rëq yi yi nga xam ne ni ñu ngi ko doon njortu ndax xam nga loolu rek moo si am audit loolu moo si am important du conclusion bi ndax conclusion si subjectif maanaam euh, xam nga boo dee xool dara ni nga koy waxe ak man ma xool ko ni ma koy wax mën naa wute mais li si am moom lu weex moom lu weex rek la constat am na lu ñuy wax constat yi li si am moom mooy mooy rëq-rëq bi boo ko waxee waaw mais rëq-rëq saafara bi nag sa non bu jéggee dayoo dootul fiable. dootul fiable ndax surtout que. ndax bu dee yow nee nga doublon bi tolérance bi mutul 1 pour cent. waaw nga xamante ni tolérance bi ëpp na 10 pour cent. loolu ëpp na 3 3,2 2 pour cent te fekk 0,3 pour cent la waroon ne. Ah, mu nekk 3,2 pour cent. nga ñëw ay nit ñu bindu nga ñëw nga wane nii ah si affaire certificat de résidence yeeg euh, extrait de naissance yi am na si euh, million genn wàll boo xam ne si noonu la nu bindoo te loolu am na ay jafe-jafe. la preuve rapportu Sénat bi nga xam ne ni 2017 daf ko waxoon xam nga kooku du sunu ay wax aussi. ñoom ñoo wax ni ah waa PDS de si jamono Umar Sarr bindoon nañu leeta ni Dagana am na càcc bu fa nekk. si wàllu certificat de résidence. yónnee ko mu nekk junni lu ëpp junni nit yónnee ko Sénat au niveau national. Sénat boobu yónnee ko seen structure départementale SEDA kooku dem xool. gis ñi si dëkk Richard Toll comme Richard Toll ak Dagana ñaar fukki kilomètres la ak juróom ñu taal seen oto dem fekk ñooñu dem jël si lu tolloog fukk bi ñu leen jëlee ñu ne ah ay la yowoon de ñun dëkkuñu Dagana Richard Toll nu dëkk waa lu tax ngeen bindu fii ñu ne ah ñu daal suñu ay xarit ñu waxoon ni nañ leen jàppale si si si si si si si élection wu Dagana yi bu buñ leen joxee suñu carte d'identité nan leen jox suñu carte d'identité rek ñoom li si des mën nañ ko def léegi lu may wax ni rapport Sénat la ah, deux mille ah 2017 rapport 2017 ñu yónnee ko tribunal tribunal nee na eh, il est incompétent mais xam nga loolu ñun dañ leen waxoon auditeurs yi ni leen càcc yu mel noonu nekk si liste yi wax leen ñu ay ay pexe yu nga xam ne ni mën leen leen si jënd ndax ki nekk dëkk dag Richard Toll te wane na ni Richard Toll dëkk warul nekk li su dagana. d'accord mais mais Saliou. Euh, ah. Saliou Sarr euh, yow yaa jiite euh, yaay coordonnateur opposition bi ci dialogue euh, politique bi waxtu wi jeex na sax ñu fàttali ko suñu mbokk euh, auditeurs yi mais sànq yaa ngi félicité experts internationaux yi ndax yéen euh, dafa am ñoo xamante ni ñoo état bu Sénégal sax ci lima dégg ci xibaar ñoom fayuñu auditeurs yi beneen kuréel moo ñëw jël ay experts pour ñu càmbaral ñu fichier électoral bi man li ma jàpp man en tant que sénégalais euh, ci conclusion yi du du fichier boo xamante ni tey bu fiable la war a bu mën a dem ci ay élection te d'accorduma tamit la mu fichier bu fiable la li tax d'accorduma ci mënoo ne yow Dagana gii askan bi fi yeewoo trente mille personnes ñoo fi yeewoo élection jot ñu xool quarante mille personnes nekk foofu noonu war faa war faa voté nga ne tey Euh, logiciel bi nga xamante ni tey moom lañ doon bindoo ci fichier électoral bi li mu mën a càmbar moom mooy empreinte bi. mun munta càmbar leneen loo xamante ni tey jëm na ci wàllum euh, certificat extrait de naissance wala certificat de résidence loolu mënu ko fichier mënu ko càmbar yow loo gisante ak conseil constitutionnel gi nga xam ne ñoom ñoo yoroon wàllum parrainage bi mënoo gisante ak ANSD bi nga xamante ni moo la woon a wax na la commune bu reefankat ki fa am benn at ba ki fa mag nangam nangam ji la beneen bi doublon yi li ñu leen waxoon ne leen si la war a yem passé na ko mais kon lan Saliou lan moo jag ci fichier électoral bi. waaw moom la moom la ñu wax ni li si am importance mooy lii nga wax yii yëpp. moom la moom moom moom déglu waaw waaw waaw mais moom la moom la moom la moom la auditeurs yi génne ñun loolu rek lan leen santoon li si des laajuñu leen ko. waaw loolu laajuñu leen ko ndax lii rek lañ leen laajoon et lii moom moo am importance pour wan ne nit ñi. maintenant pour wax ni mën na noo jooyanti. léegi nag fii nu jëm fii nii opposition et c'est là où foofu laay lancer appel ñun une fois que ñu gis ni lii jafe-jafe la lii jafe-jafe la lii jafe-jafe la lii warul nekk na te waruloo nekk te ñu ngi jëm ci révision exceptionnelle nanu jël li nu yoon may pour fexe yooyu fa nekk yooyu ñooñu fa nekkoon yépp te waruñu fa nekk ñu génn leen ci fichier électoral bi. d'accord jërëjëf euh, Saliou Sarr am na yeneen ponk yoo xam ne bëggoon nañoo dugg ci taxaw Sénégal ak yooyu waxtaan wi neex na te waxtu wi jot na lan ngay tàggoo. waaw di wax ni eh, xam nga ñu bari dañuy wax ni taxawu Sénégal xalifa dakaar rek la nekk man mi maay responsable département Dagana. Mhm. de nekkoon man ak Aïssata Tall Sall yore région wu Saint-Louis. donc noonu ma nekkee Dagana. le téeméeri responsable nekk dans les départements et dans les régions waaw non non non bu dee laaj ko Omar Sarr wala ñeneen ñi ndax man ñun duñu nekk opposition di lu mel nii ñu doon wax nii ay nit ñi ñu jëlee feneen di leen indi dagana moo tax ñu ñu daawoon di gañe mais bu nu bàyyi woon dagana ak dagana rek mm. kenn du nu gañe te loolu xam nañ ko ndax gis na ni ah. bu élection di ñëw lu ëpp juróom fukki kaaru quatre-vingts places ñooy ñëw jóge feneen ñëw fa donc dag ñëw dagana mais da ngeen corriger euh, allah donc pour wax ne ni dama bëgg a wax rek nii taxawu Sénégal xam nga bi ñu demee si euh, parrainage bi bokk na si ñi gën parrainage si Sénégal donc pour wax ni taxawu Sénégal mi ngi dans les quarante cinq. départements est-ce que pare ngeen pour dem local taxawu Sénégal bien sûr bien incha allah li si kanam raw euh, li si kanam rawul bët. Hmm. incha allah le Séné euh, taxawu Sénégal dana dem si élection yi dans les cinq cent cinquante deux ou cinquante sept. Euh, collectifs waaw waaw. fépp da fa am liste. lépp fépp daan fa am liste. yow candidat nga mairie bu Dagana. loolu loolu lu nuy lu nuy loolu lu nuy waxtaane la ndax xam nga fi mu nekk nii eh, li ma mën a wax daal. mooy taxawu Sénégal dana am liste. si cinq cent cinquante sept collectivités territoriales xam nga nag élection gox-goxaat da ngeen di maanaam waa ay waa dëkk ñooy waxtaan ba jubo ba defar seen liste. d'accord jërëjëf Saliou ñoo ngi lay sant gërëm. maa ngi lay gërëm Abdou Khadre di kontaan trop si invitation bi di leen remercier si turu si turu opposition merci. jërëjëf euh, Saliou Sarr mbokk yi moom la ñu invité woon ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM mu am samedi bu jot ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu maanaam 15h jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.